le combat bi ñuy def bu ñu ko réeree mbir ma ne bu ñu combat bi ñu c'est un combat extrêmement sérieux xam nga kan mooy le combat bi laaj quand ma kan le combat c'est pour la jeunesse la jeunesse est dans moom combat bi dañoo et dañoo bëgg la jeunesse de Dieuppeul-Derklé ñu porter le président Macky Sall premier round leen est daanu de des fois dañuy réere mbir dañuy élection bu am solo la ñu la ñu jëm lu ñuy c'est très sérieux une élection présidentielle c'est la rencontre d'un homme et de son peuple benn nit rek moom mooy candidat y a pas un autre candidat mais y am quatre autres candidats y am quatre autres candidats et ñun li ñu yore quatre quatre candidat yi mais candidat bi ñu yore Afrique pays bu amoon président Macky Sall day daw ba fàttu élection législative yi passé dañu leen parce que c'est un challenge challenge boo xam ne première dame dafa ñëw ba fii te xam naa ne du ngeen ko rusloo première dame dafa ñëw ba fii pour dolli ñu doole parce que élection législative yi passé mille cent voix moo nekkoon nous donnons en 3700 voix, nous avons 4700 voix. Donc, nous avons 1100 voix. Est-ce que parlez nous pour, pour l'eau Est-ce qu'on va réduire le dates Est-ce qu'on va surpasser ces dates Les nous avons moins. Les quel ne va passer à ces niveaux de l'école Mais nous devons nous donner Est-ce que vous voulez nous donner